je pense qu'en tant que ministre de la communication Mbagnick Ndiaye warul waxee faire ba fay xalaatee quoi parce que euh, en tant que ministre si euh, ñu la tegee poste c'est parce que pour mon compétence moo tax ñu la quoi mais pas parce que je suis le président ou la mm, mm, première dame quoi je pense que une erreur quoi je veux dire que jëkkër ji la ñu fal quoi C'est ce que je ci sama xalaat quoi. am mu place soxna rek ak c'est important. Ah, vraiment si sama me discute. man je me dis que loolu amu fa place parce que Mariam Faye d'abord jabaru Macky donc man je me dis que moi je suis remercié Makila va remercier parce que ñun bu ñu élire Makila nous élire donc c'est vrai que jabaram la mais man je me dis que propos a amu fa place mais man je me dis que Mariam Faye Sall dafa am fenn fi nga xam ne suñ fa tolloo moi dafa yem Macky mo wara a décider te pour man Macky su démé ba décider mom mo décider ministre wara war mom la neex mu tàll leen donc suñu waree remercier on doit remercier le président Macky. suy dem humblement na di na wax Macky Sall merci mu dem donc euh, ay nekk fi di féliciter Mariem Faye Sall man dama né lolu bugg ko gëna tok bu baax kese la pour man noonu la ko gissé je pense que fofu dafa dafa dafa djum dafa dafa djum parce que bon nit matul. ni dong la boo dégloo li mu wax li nga xam ne foofu erreur la mais tamit il faut pas nit ñi tam ñu jël yëf yi di ko yaatal trop trop bu mu naree ba mu nar indi problème donc man di ma ko gisee euh, wax na ko mais dina nekk loo xamante ne da ko rëccu parce que tey jii boo toog nag moom di nga xam kii nii li mu wax dafa jum ma loolu amul kenn ku ci ànd même su fekkente ne am na seen mais am na secret boo xamante ne xëy ne warul warul feeñ bu dëkk bi ñëpp di ko yëg man dal non laa ko gisee. waaw léegi comme secret bi nga wax rek légui yow ci biir secret boobu est-ce que yakar nga ni mariam Faye Sall tam est-ce que warna euh meuna a impliqué wu ci affaire gouvernementale bon c'est vrai que maîtriser mako trop trop parce que mbirum politique affaire yoy maîtriser mako mais su fekkente ni dëggantaan jaay loolu mo am waru war nekk loo xamante ne war na ci impliqué wu mais comme maîtriser wu nit ñee wax. bon defe naa côté boobu mënu ma cee wax trop trop waaw. loolu moom du waxam parce que ñoom ay exemple lañ dañoo war a jël exemple ci ñoom moo tax am na yoo xam waruñu ko wax sax nit ñi ko dégg même bu dee lu am na sax waru ñu koy dégg. parce que li xew ci gouvernement bi moom Macky war a toogee place su première dame rek toog jàpp ñaama mais loolu war cee dugg ndax yoonam nekk dëgg yàlla. li ñu koy conseillé daal mu toog bàyyi jëkkëram liggéey loolu